AXIF dafa nek euh, doole bo xamné day def ay propositions day lepp lo xamné ne jaarul yoon ñu dénoncé ko ba ñëpp xam ko mais aussi des dankafu ñi nga xamné tay tey jité ñi nga xamné tay tey ñoo jiite système bancaire bi problème bi nak dafa opposé ñaari mbir ñaari nit Bokar Samba Dieye et CBAO. Tout le traite là. Le CBAO dit que Bokar Samba Dieye l'a signé pour que le Dieye 17 000 tonnes. Plus de 17 000 tonnes. 17 millions de tonnes de riz. Le traite, quand on parle de toi, le CBAO peut sortir le traite.

ñu dem seen yoon waa nan la bato mën a accosté ñu déchargé bu mu jeex tàq ñu fay ko mu dem CBAO génne benn traite 15 jours presque après bu bato ba demee ba pare ñu bëgg a taxaw ne traite bii moom moo fay bato ba mënta ne yenn wut maana loolu la expert bi wax comme boog mbiru njuuj njaat yu mel nii ñun mënuñu koo seetaan parce que askan bi lañ fi neewal justice li may wax di ko rendre D'accord, rendre au nom du peuple la wax askan bi comme askan dit tax muy wax nak ñun danañ dalu ci askan bi wax ñom xamal ni mbir mi mbirum la mbirum la comme dund chaque jour ci banque yi sen xol du ci bon mu nek engagement war nañ pour nous. régler définitivement jafé jafé yu ku ci di dund amana da ngaa a génn banque ñu la teg ay amande amana danga jël sa carte gap di wër ci banque yi fay ko lu cher ba pare mënoo am gàpp amana da nga am benn këyit bu nga fa soxla pour mën a euh, attestation euh, relevé de compte ñu lay loo te waruñu ko fayloo donc ñëpp ñoo xam ne tey am na ñu leen mës a naqari ci banque bunt baa ngi nii pour que ñoom ñëpp ñu engagé wu autorité banque centrale autorité Sénégal xam ni ñëpp tey dañoo

yeewu moo gën njàng boo jàngee te yeewoo amul benn njëriñ te moom jàng na arxuraan bi yeewu na min na commerce bi donc kenn mënu ko cee ndax wax ji yëpp loolu la moo tax nag ñuy xeex pour que problème bi ñu juge ko définitivement bu ko defee Sénégal yëpp xam fu ñuy taxaw banque dootul ñemeeti toroxal suñu entreprise wala toroxal sénégalais bu mu mënta doon 17 millions de Wow, pétition yi réseaux sociaux yi ci communes département yi un million de pétitions yoo sénégalais yi nous avons signé ñu teg ko ci bureau assemblée nationale bu ko Wow, assemblée nationale prononcé Wow, ci question définitivement. Wow, may Wow, 5 milliards Wow, Wow, Wow, plus de 100 bateau tiep indi 103 103 bateau tiep indi na ci deuk bi comme boo kooku kenn du ko jàngal bi. Ah livraison a vue la woon. amul traite bu ca mën a warul meuna a am traite livraison a vue moy da ngay das ñu jox la bo dasul duñ la jox mënoo das nak ñu jox la ba paré banque jógee fële 15 jours après. wala li si topp ne ne ne génne ne ñoom ñoo ko fa ñoom defar traite boo xam ne nee na yow yaa yaako yaa ko yaa si mënta ne